bokk incha allah ñi ngi war a jël tey aaya juróom-ñett ci suratu saba fii suñu borom di waxe ni aftara ala allahi kaziba إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon incha allah ñu bàyyeeg Cheikh Ousmane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا barakallahu fiik suñu borom mu ne yéeféer yi day bi ñu waxee ni ndax du ngeen kaay ñu tegtal leen ci ku ne bu ngeen demee ba doon ñu moxoñoo ci biir suuf dañ leen di dekkal ñu ne waaw moom aftara ala allahi kaziba daa dóoral ci yàlla ay fen am bihi jinna wala boog jinne moo ko solo di ko wax loo li muy wax balil lazina laa yuminuuna bil axira waaye la am kay mooy ñi nga xam ne gëmuñu alaxira fi l azabi wa dalali l baid ñi ngi ci mbugal ak réer goo xam ne gu sori la afalam yaraw ila ma bayna aydihim wa ma xalfahum xanaa gisuñu ci li nekk seen kanam ak seen gannaaw min alsanai wal ard ci asamaan ak suuf in nacha naxsif bihim al ard suñu neexoon day ñu xar ci ñoom la nga xam ne mooy suuf aw nusqit alayhim kisafan min alsama wala ñu rotal ci seen kaw benn daggit bu bawoo ci kaw asamaan inna fi dalika la aayatan li kulli abdin munib nekk na ci lii day kawtéef ñeel bépp jaam buy dellu ci boroomam wa laqad aatayna daawuda minna fadla ñun day joxoon nañ yeneen ci yàlla daawuda lu bawoo ci ñun muy ngëneel yaa jibaalu awwibi ma'ahu ñu naan ñu ne montagne ya na ngeen di dellu di ànd ak daawuda wa tayra noo nit lañ ko digal woon picc yi waalan naa lahu alxadid noonu lañ ko nooyale woon la nga xam ne mooy weñ an yamal saabixaat sant ko mu daal di defar la nga xam ni mooy lu wala fi tudde mbubb koŋ ñu koy tudde gilet di mbubb yoo xam ne kii dem guerre da koy sol mi ngi noonu wa qaddir fi sard na nga yemele képp te la nga xam ne mooy tëjukaayu mbubb ma wa amalu saaliha ca ngeen jëf jëf bu yiw inni bima taamaluuna basir man day li ngeen di jëf ku ko gis la mbokk gis nañu ne suñu boroom bari na lool di ñu nettali yonent yi fiñ jaaroon ak seen xeet waaye it mu gardeel ñu ci alquran suñu yonent yàlla muhammad moom it fi mu jaaroon ak xeetam bokk na lu ñu jàngoon démb mooy saboote ñi ko doon saboote ndax da doon wax ni allaaxira am na ca loolu mbokk mooy loo xam ne dañoo jàppoon ne munta nekk seen xel mënu leen may loolu ñu indi ca seeni lay mooy ñun bu ñu dee ba dugg ci biir suuf dañuy doon ñu tasaaroo loolu nag ban kattan moo mën a jógaat di ko defar te mbokk loolu mooy ñàkk gëm kàttanug yàlla benn doonte ne it dañu xam ni diini baasu diini moom mooy gëm kumpa diine du lépp lañ mën a justifier waaye da ngay gëm ni kii ko wax lu mu wax rek dëgg la ngeen nangu ci loolu maa ngi leen doon nettali sunu góor ga Dramane Diallo bi muy wax seen paa bi jokkoone dem France bi mu ñëwee ci Bakel ñu toog ci mbokk yi magi saraxule yi muy nettali ne France day boo demee am na saxaar yoo xam ni ci biir suuf la ñuy daw loolu paa yi ne ah ku ne jàpp sa gémmiñ waaye ba góor gu jógee dem ñoom ñépp ñu daanu ci suuf ni waaye jiyee mën a fen waay saxaar nu muy dawee ci biir suuf seen xel natt mënul natt ba imaginer loolu mais quand même bu ñu maandu woon comme kii nee na leen maa dem ba gis duñ ko gaaw a weddee noonu loolu bokk kumpa yépp noonu la mel mooy li ëpp li ñuy dund tey ku ko waxoon sunu maam yi ñu weddi ko commencé xotti yii ma tiim ku dellu woon tey jii ci sunu maam yi ne leen kat nit ki mën na jël aw xott boo xam ne ci ngëbu loxoom lay yem bu ko neexee ne allo Amérique Amérique wuyu ko allo Makka Makka wuyu allo fii wuyu bal bu ko neexee sax ubbi ko jàkkaarloog ñoom mu koy gis mu ñee di ko gis wax dëgg yàlla seen xel munta nangu loolu abadan mais gis nga tey ni ko yàlla indee. kon ñun ñoom ñu ne loolu nu mu mën a nekkee ñaar rek a mën a am wax jooju koy wax imma nga duural yàlla ay fen te mooy xam nga ni li ngay wax du dëgg nga duural yàlla ay fen. te it mbokk duural yàlla fen yàgg na fi te mi ngi continuer di am ba ila yawmi diin aka bari ñu ñëw ne yàlla leen yónni ci jaami ci yàlla yónniwu leen aka bari ñu ñëw ne yàlla may na leen ay may sàngam may sàngam ba mën nañoo ràmm nit ñi ci yàlla defu ko ala kulli xaal ndax dafa dóoral ci yàlla ay fen wala bokk moom li muy wax teyu ko jinne moo ko solo di ko waxloo te it ku ne xam ne doomu aadama dana dof di wax wax joo xam ni ku ne xam ne ni lii du wax jum tey te loolu it mu lay jàngal ni jinne am na te jinne yi dana solo doomu aadama mi ngi noonu léegi yéeféer yi suñu borom ne ñoom day dañoo nekk ci mbugal naam fil azab la chaque nekku ci deyaale loolu moom sa war a nga jëm donte ne azab boobu ci àdduna lay commencé mbokk ki gëmul yàlla mi ngi ci azab te loolu li la koy won dellul Occident nga xool chaque année lañ fay wax ci ñiy bëgg a xaru bëgg a rey seen bopp par rapport ak dëkk yi nga xam ni diine dafee am mbokk yéeféer bu jabaram dee mu ne àdduna tukki na doom dee àdduna tukki na am na lu yàqu ci yaramam àdduna tukki na su ko defee loolu moom day jàpp si fini parce que gëmul àllaaxira lépp fii la yem amma bu dee ni julite moom suñu borom nattu bu mu ko teg danaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sama jabar ji de dem na natt la bu ma yàlla teg su ma ko muñee muñ ko rafet yàlla dana ma may pay ak ngërëm ci àdduna te it allaaxira yàlla dana ma dajalawaat ak moom amma yéeféer suñu borom mu ne xad yaisu min al axira kama yaisa al kuffaaru min ashaabi al qubuur pour ñoom ko dee jeex na natt bu leen dal jeex na mais amma julit lu ko mën a dal day dellu ci yàlla sant yàlla ba tax suñu borom ni alladina amanu walam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn ñi nga xam ne gëm nañ ci gëm gi amul lenn lu ko rax ñoom dañoo am kóolute natt multiforme bu leen mën a dalit ñi nga ànd ak seen dal di dellu ci yàlla subhanahu wa taala ca gëm ni yàlla lii mu leen teg tegu leen ko lu dul dafa fekk moo gën ci ñoom amma yéeféer c'est tout à fait le contraire moo tax suñu borom ni fil azab ñi ngi ci azab ñi ngi noonu même bu leen gisee seen gratte-ciel yi ak seen limousine yi borom bi it subhanahu wa taala ne waaw ñoom day xanaa xooluñu seen kanam ni yàlla tàllale suuf xooluñu seen gannaaw ni yàlla tàllale suuf waaye tii nañu it gis asamaan li fa yàlla def ci kàttan yàlla moomu def loolu su dee moo digg ne dana dekkal ñi dee kenn waru ko weddi suñ borom mu ne la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqi naas mooy bind gi bind asamaan suuf su ngeen ci xalaat da ngeen xam ne kàttan gi def loolu moom moo ah nekk koo xam ne nii am na kàttan di dekkal ñi dee woon awalaysa alladi xalaqa alsamawati wal ard bi qadirin ala an yuxyiya almawta mi ngi noonu suñu borom mu ne loolu muy benn ñaareel bi it muy mbëru gi ñu mbëru di saboote sama yeneen mu ne su ma neexoon xar suuf dugal leen ci de te loolu defoon na ko ak saay saay bi di qaaruun su ma neexoon roddal aw dagit kaw asamaan te ba tey du tey nga gis am na lu ñuy tudd tubaab yi tudd ay météorite xam naa sunu maam yi moom lañ daan wax ay dëllool rek mbokk yooyu ci kaw asamaan lay daggee di dal lu ci bëri ci àll yi yaatu lay dal àllu Australie ay àllu Canada yeeg demee noonu nga xam ne ay xeer la yoo xam ne bu dalee mën na jël rayon cinq kilomètres mi ngi noonu def fa pax moo xam ne kenn du xam nu mu toll nga xam ne bu doon ci ab dëkk la dal da leen di maasale benn ko suñu borom nag mu ne am naa kattan xar suuf am naa kattan jële xeer kaw asamaan mu dal seen kaw borom bi nag ni nekk na ci lii de ay preuve yu leer ci bépp jaam buy dellu ci boromam xam ne yàlla mi def asamaan ak suuf am na kattan dekkal ñi dee woon te xam ne it yàlla mi moom asamaan ak suuf kenn warul nekk di këyitloo ay aayaam ak yeneen tam sunu borom bàyyi loolu wax nañu kawtéef ci jaam yi dellu ci moom mu indi ci kenn muy daawuda alayhi salaam fastaghfara rabbahu wa qarra raaki'an wa anaab ku daan dellu ci yàlla la daawuda alayhi salaam suñ borom mu ne maa ko defaloon ngëneel ngëneel ba gën a màgg mooy defal na ko muy yonent gannaaw ba may ko doomam di yonent muy Suleymaan suñu borom may ko nguur goo xam ne kenn contesté wu ko nguur gépp ko déggal wa shaddadna mulka mi ngi noonu gannaaw ba suñu borom yàlla may ko yenn yoo xam ne dana koy wax fii bokk na ci loolu mooy baat bu neex bi mu ko mayoon suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla mayoon na ko juróom ñaar fukki baat boo xam ne bu yëkkatee am njàngin ba nit ñëpp waaru mu bàyyi baat boobu yëkkati beneen baat ca laa doon wax abu musa al ashari ci gënoon a neex baat ci sahaaba yi mu ne yàlla may na ko benn baat ci baatu yi mayoon daawuda alayhi salaam heure bu daawuda daan jàng tawraat suñu boroom da daan sant montagne yi ñu amplifier ko tey alhamdulillah dem nañ ba yàlla may ñu doomu aadama mën a créer matériel yuy amplifier te mooy wax jii may wax mën naa koo amplifier ba yow mi demoon nekk fu sori di dégg kàddu gi ban léegi lu gën a yaatu loolu da ngay gis ab rajo buy émettre ca Londres wala di émettre ca Makka foo toll ci àddina bi man koo capter dégg ko noonu la yàlla defoon montagne yi waroon Daawuda alayhi salaam bu daan jàng tawraat dañ koy amplifier di ànd ak moom di ko génne foo toll di dégg picc yi it tayra mahshura bu Daawuda masan commencé jàng tawraat picc yépp dañuy ñëw tàgg ànd ak moom di woy tawraat boobee loolu nekk décor boo xam ne ku ko masaan fekkee neexoon na lool rafetoon na lool bal dañ naan xattaa njaa àll yi sax dañ daan ñëw wër di déglu borom bi subhanahu wa taala gannaaw baat bu neex boobee ak na mu ko tàggatale montagne yi di ànd ak moom ak picc yi mu ne it nii laa ko yombalale weñ ba daawuda alayhi salaam bu masaan téye fer barre de fer bu ko téye day mel ni yow mi nga xam ne da ngaa téye woon sab éponge num ko neex la ko daan leme num ko neex la ko daan dagge lu ko ci neex la ci daan defar suñu borom yàlla na ko nag defaral mbubu koŋ te mooy ki jëkk a defar li nga xamee ne nii mooy gilet yi ngay sol pour booy guerre ñu ngi noonu ko tuddee ak dërëu suñ mag ñi di ko wax mbubu koŋ te loolu di xéewalu yàlla subhanahu wa taala ba ko dañu xam ne suñu borom nee na bi mu ñuy génne suñu biir yaay yi xamuñu dara amul benn découverte scientifique boo am ñu dem ba nit ñi di ci jëriñoo lu dul yàlla subhanahu wa taala moo ko xelal ab jaamam la doon jaam bi julit la wala yéeféer la waaye yàlla moo ñu waxoon wa aataakum min kulli ma saaltumuuhu lu ngeen soxlawoo maa leen koy jox su ko defee biñ demee ba xam ne doomu aadama yi kat fas ak mbaam doyatu leen ci tukki mu am ñum xelal ñu créé oto am ñum xelal ñu créé ay train ñu deme dem ba bi aajo bi gën a yaatu loolu am ñum xelal ñu créé avion loolu ci transport bi naka noonu nag mooy jëm ci lépp communication boog lu mu mën a doon kon yàlla moo xelaloon yeneen ci yàlla nuux lu muy defere gaal moo xelal yonent yàlla daawuda lu muy defaree ay mbubb yu ñu sol ci guerre mu ne ko defal saabiqaat yooyu wa qaddir fi sord sord boobu am na ñu jàpp ne mooy fi bouton bi di dugg am na ñu jàpp ne mooy mismar bi ci boppam bouton bi ci boppam almuhim boo ko bëggoon a tënk mooy tëjuwaay bi defar ko ba lii di pression bi dugg ci biir maye bi bañ a rëy ndax kon bu ci duggee benn yoon mën na ko tas waaye mu bañ a faible ndax bu duggee bu waaju doxee day ubbeeku ay yeme la ko juste qaddir fi sard loolu it sunu borom yi nga jàngale gàllawaay yow la maçon le menuisier l'électricien la kum mën a doon lépp li ngay liggéey jox ko dëgg-dëgg ak xam jox ko dëgg-dëgg ak xam ba mu daal di doon loo xam ne ëllëgi ki si biir du jur jéya ca ak bari fii ay maçon yoo xam ne dem nañ laaxira ba pare rey cinquante personnes seen gannaaw ndax lañ doon liggéey gis nañu ne dara lu baax defuñu ko ci am na ci ñenn ñu ñeme yàlla ba pot yi war a am quatre poteaux sax benn fer lañ ciy def gis ngeen loolee day am noonu it lay amee ci yeneen façon liggéey yépp su ko defee suñu borom mu ne luy liggéey xaddir yemele ko lam laaj ci àq nañ ko ko jox te loolu bokk na léeb yi ci tubaab yi di lépp ñu ne buur bi day dafa doon préparer guerre ba muy préparer guerre ñu def temps bu yaatu ci tàggat armée bi militaire yi tàggat seen kii de guerre yi ñu daan sol loolu lu yàgg la waaye tëgg bi nga xam ne mooy feere fas yi nga xam ngeen bu njëkk fas mooy mooy bi gën a rëy pour guerre nga xam ne moo ci def ay feer nee na moom kenn boolewu ko ci mbir mi kenn xalaatu waatoolu ko bañ demee ba guerre bu war a taxaw nag ñu ñëw indi fas yépp moom it bu ñëwee bu dóoree benn pont rek mu jàll dóor pont mu jàll noonu la def ba def ko fasu buur bi nee na ñu dem bay attaqué rek fasu buur bi feer bi deñ fa kastalu mu daanu ñu rey ko ñu dàq armée bi ñu ne armée bi yépp dàq nañ ko à cause que am na kenn koo xam ne gisul boppam ci dëkk bi ñu suufental ko mu def liggéey boobu waaye lu mu ca teg ñu ne bañ dàqee armée ba ñëw nañ ca dëkk ba taal dëkk ba taalaale mbaaru tëggam gis ngeen kon gis ngeen loolu mu doon def donte moom jàppoon na ne mi ngi fayu waaye gis nga musiba bu na mu dellu si ci moom loolu it kon bokk lañ ci jublu woon rek mooy lépp luy liggéey na nga ko rafetal ndax xamoo boo ci defee ak ñaawal conséquence yi ci lan lay mujj mi ngi noonu ca mécanicien bay defar oto baag accident yi ca mën a juddoo yépp ñu war cee bàyyi xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ni gannaaw loolu kii di daawuda alayhi salatu wasalaam day sant naa ko moom njabootam ne leen na ngeen di def lu baax te xam ne maa ngi gis li ngeen di def i'malu saliha na ngeen def lu baax te maa ngi gis la nga xam ne yéen a ngi koy def te loolu it mbokk dafay dellu rek ci li ñuy tuddee gratu ihsan xamal ne doomu aadama diine bu fi yàlla mas a wàcce ñetti martaba la benn bi mooy li ngay gëm ñu tudde ko iman ñaareel bi mooy li ngay jëf ñu tudde ko lislaam ñetteel bi mooy li ngay rafetal di ko yëg ñu tëdd ko ihsaan te mooy foo mën a nekk ak loo fay mën a def nga jàpp ne sa borom yàlla day mi ngi lay seetaan te loolu boo ko jaaralee jaareen bu rafet dana la fay àdduna fay la àllaaxira soo ko doxalee doxin bu ñaaw dana la jox conséquence bi ci àdduna bu la jéggalul musal la àllaaxira yàlla na yàlla dépp la ñoo jëf ju sell
ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين السحر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين barakallahu fiik suñu boroom mu ne wali suleymaan riix suleymaan it day tàggataloon nañ ko la nga xam ne mooy ngelaw la xuduwuha shahr la nga xam ne nii moom mooy xëyam ma doxu weer la wa rawaahuha shahr ngontam la doxu weer la wa asalna lahu ayn alqitr ballal na ñeel ko la nga xam ne moom mooy dexoog xanjar mooy bëtu xanjar déggub xanjar boo xam ne yàlla moo ko ko def muy nekk comme ndox wa min al jinni naka noonu it ca jinne ya man yaamalu bayna yadayhi tàggatal nañ ko ñuy liggéey ci kanamam bi izni rabbihi ci ndigal ndigalu boroomam wa man yaziq minhum an amrina képp koo xam ne jeng na ca ñoom ci suñu mbir nuziquhu min azabi sair daañ ko mosol ci mbugalum sair yaamaluuna lahu ma yacha ñi ngi ko doon liggéeyal lu ko neex min mahaarib ci ay tabax yu mag yu ñuy jaamoo yàlla seen temple ya wa tamasil ak ay statue wa jifaan ak ay bagaan yu rëy kal jawaab yoo xam ne dañoo mel ne ay bassin wa quduuri raasiyaat ak la nga xam ne ay kaddir yu sax benn place yu kenn dul déplacé i'malu ala daawuda shukra liggéey leen yéen njabootu daawuda ak sant wa qalilu min ibadiya shakur lu néew ci samay jaam day ñooy ñey sant falamma qadayna alayhi almawt bañ demee ba dogal ci moom dee ma dallahum ala mawti tekkelu leen ca deeyam ga illa daabatul ard lu dul lay dox ca suuf ay mooy max ga taakulu min saata nga xam ne moo ñëw ba lekk yatu suleymaan ba falamma xarra ba suleymaan rotee tabayyanatil jinnu noonu la leere ñeel jinne ya allaw kaanu yaalamuuna al xayb ne ñoom day bu ñu xamoon kumpa maa labisu fi l azaabi al muhin du ñu woon sax ci mbugal mi nga xam ne moo leen di toroxal mi ngi noonu mbokk yàlla wax nañu bàyyi ba muy daawuda alayhi salaam mu bokk ci xéewal yi ko yàlla defal mooy doom joo xam ne yonent la comme nam ko defale woon ibrahim nam ko defale woon ishaq defal ko yonent yàlla yanqub kon suleymaan it bi mu ñëwee fekk bàyyi mu yoroon na ngóor gu rëy sunu borom yàlla dollil ko ca moom tàggatal ko ngelaw muy jox ngelaw li ordre mu ko yëkkati di ko yóbbu fu ko neex te Suleymaan dafa amoon benn tappi boo xam ne bu yaatu la buy dem mook notable yi muy àndal tukki ñooy toog ci kaw tappi bi su ko defee ci kattanu yàlla ngelaw li ñëw yëkk ci tapp bi yóbbu ko fa nga xamee ne bu doon seen jamono ñoom ñi ngi ko daan dox weer yàlla pour yegg fa te loolu arab mi ngi ko daan natt ci six cent kilomètres muy vingt kilomètres par jour li ñu daan dox six cent kilomètres muy weer ngelaw li bu nee jajjit kii bi rek daw ak moom ci benn suba balaa suba gee jeex mu déposé ko fa ngoon gi it bu jógee balaa ngoon gee jeex mu delloosi ko ci ay paleem loolu mbokk nekkoon xéewal gu rëy boo xam ne man naam yéeféer yi buñ koy jàng ne xëy Muhammad daal ma bëri solo rek li nu mën a nekkee gis ngeen ñun ñoo dem ba dund yàlla won ñu xéewal gu gën a màgg googu mbogg avion yi ñuy dugg da ngay dugg ci biir ñoo climatiser la ko nam neexe nga toog sa seize sa añ ak sa reer di lu dikkal muy daw ak yow xel yu gën a foor téeméer yoon la nga xam ne moom la Souleymane nekke woon Souleymane man nga wax ni lii di kéem ba di daw nga xam ne six cent kilomètres bu ko dayoo aw xëy même boo jàppoon six heures de temps lay def sax yegg loolu ça fait juste cent kilomètres par heure am naa sunu avion de ligne yi nga xam ne mooy yóbbu passager yi ñi ngi daw ay neuf cent kilomètres par heure mooy ñi dem Makka ak yooyu amma bu dul supersonique yi moom nga xam ne dañuy daw ay mille mille deux cent mille et quelques la chaque année loolu Souleymane doon def une heure de temps mën nañ dem aller retour yàlla may na ko tey doomu aadama di xiiwal goo xam ni dañ cee war a sant suñu boroom waaye loolu la yàlla defaloon Suleymaan mu dolli ca ndax Suleymaan xam ngeen it ñaanoon na yàlla may ko loo xam ne du ko may keneen ba ila yumi din gannaaw ngelaw loolu mu ko tàggatal mu dolli ci may ko la nga xamee ni nii mooy benn déegu xanjar nga xam ne bu jinne yi ñëwee di ko defaral lam bëgg tey jii tëgg bi boo bu doon defar dara ci or wala xaalis da koy jëkk a togg ba pare dooga nag commencé defar ko ay caq wala chaîne wala leneen Souleymane nag yàlla ko toggal xanjar bi mu nekk déeg gars yi dañuy génn rek di defar sunu borom yàlla subhanahu wa taala may ko ay jinne yoo xam ne Souleymane moo leen commandé kenn ci ñoom ñemewul mooy ndigalu Souleymane ndax borom bi nee na automatiquement mbugal mu tar mooy nekk di la xaar Souleymane jox leen ordre ñu koy tabaxal ay taax maharib mooy taax yu am solo ca ñu ngi ci jublu woon fa mu doon jaamoo yàlla xam ngeen yahudi bon yi soo gisee seen mébét depuis lu ëpp juróom fukki at ñu ngi koy wax masjidul aqsa dañ ñi il faut ñu màbb ko ndax lii di li ñuy tuddee temple Souleymane ñu ne mi ngi nekk ci suufu jàkka bi loolu moo tax ñuy wax seen wax yu bon yooyu ñuy wax ala kulli xaal doon nañ ko defaral lu ko neex ci ay tabax di ko defaral lu ko neex ci ay statue waaye mbokk loolu daa daganoon ca jamono Suleymaan ñu doomu aadama mën a defar statue tamasil mooy lu amoon ñu daal di koy dekkalaat ci nataal su ko defee dañ daan bind naan lii mooy istatu daawud alayhi salaam lii mooy istatu yanquba lii mooy istatu jibril mi ngi noonu nit ñi gisoon ko di ko fonk waaye biñ gisee ñun suñu diine nga xam ne dafa nekk diine boo xam ne lépp luy xaw a lënt jëme ci shirk yàlla da ko araamal ci ñun looloo tax yàlla araamal ci ñun istatu te loolu daanaka borom xam-xam lislaam yi dëppoo nañ ci statut dafa xaraam ci lislaam fi juyoo yi di am kay mooy waa bu dee lu ñu dessin nag nga xam ne amul takk ndeer dañ ko dessin ci miir wala ci table wala lu mu mën a doon su boobaa am na ñenn ñu ne araamul donte ne bu ñu delloo ci tegtal yi dañuy gis ne Umm Salama ba mu jógee ci Éthiopie ànd ak Mariyatul Qibti bokk na lu ñu doon nettali yonent bi alayhi salaam seen église yi nataal yooyu ñu ciy def yeneen bi ne ñoom ñooy ñu yées ci nit ñi ñooñu nga xam ni bu seen yeneen ci dee ñu suul leen fi ñuy jaamoo seen boroom ba pare di def dessin yooyu te dessin yooyu amul woon takk ndeer loolu mooy li amoon juyoo ci boroom xam-xam yi ci siècle bi passé ñu dem nag ba yàlla nattoo ñu li ñuy tuddee photographie photographie yi bi mu ñëwee borom xam-xam yi amaat ci beneen juyoo ba dellu woon ci ku mel ne Nasruddin Albani ak borom xam-xam yi gis-gisinam dañ ni ki jël bigam ji dessin wala ki jël ab simaam ji defar moo ki jël appareil bi portable la am photographe bu mu mën a doon defar ab image ñoom ñëpp defar nañ image mu am ci yenn borom xam-xam yu ne te bokk na ci ku mel ne Al-Husaymin rahimahullah ne déedéet kii di photographier defarul image image yu yàlla bi la génne te fa mu ko génne da doon télévision ba la wala ci papier ba ba mu ko génne loolu mbokk ne kay ixtilaaf donte ne ne bokk na mbir boo xam ne yéen ñépp xam ngeen ko rawatina yéen ndaw ñi mooy image bi yàlla defar léegi nu la neex nga koy changer am déet wala mi ngi noonu tey jii da ngay gis ne les grands photographes mën nañ jël benn masalan am fat caam ngi nii ñuul kukk ñaaw ba mel ni bukki manes na koo xeesal pecc am déet avec les ordinateurs manes na koo xeesal pecc taaral ko redresser lépp lu ñaawoon ci moom moo tax ku ci bàyyiwul takk jabari facebook ak jabari viber ak nangam da nga matt sa loxo bi cax mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk yooyu kon day am mooy photo yi mën nga dajale fukki benn doomu aadama ñu dajale fukki photoom ca benn bi ci nur ak moromam am déet kon liñ ñëw li yàlla bind exactement li ñuy jël loolu lu jar a seetaat la ba nga xamee ne daal liñ ciy wax mooy jullit ñi nañ ci def attention la la ci amal njëriñ nga yem ci loolu ci photo yooyu am naa nag la nga xam ne ay caaxaan laa ki souvenir rek yu kenn xamul rek yu demee noonu la gën mooy jullit moytu ko ndax wala fi dañ naan dana matt ak du matt daal bul jox rek sa loxo la la ci amal njëriñ nag su boobaa loolu moom kenn waxu ko lañ la ca force it su boobaa kenn waxu ko ndax ku ne xam ne ne photo passeport photo carte d'identité jamono ji ñuy dund amul benn borom xam-xam bu taxaw naan dafa araam ndax loolu moom lor la yoo xam ne kenn mënatu ko bañ yooyu kon ñu bàyyi ci xel amma buñ delloo ci Suleymaan suñ borom nee na ñu ngi koy defaral lu ko neex ci ay tamasil ci istati yooyu waaye di ko defarit ay bagaan yaakaar naa ne ñoom suñ jaay xatta àll àll bi waa Saalum wala ñeneen am nañu wax sax njafaan mooy bagaan yu rëy yoo xam ne suñu borom nee na dafa mel ni déeg li yéen gis bassin de rétention yi nga xam ne dañ ko defar léegi bassin yooyu ni mu rëy lii di plaque Souleymane yi ko jinne yi doon defal noonu la rëyee woon mi ngi noonu noonu la rëyee woon ba delloo sax ci li ñuy bind seen israeliyaat yi dañ naan plat bu ne junni nit ñoo ca daan toog gis ngeen noonu it lañ ko defaroon ay kaddir yoo xam ne kaddir gi sur place lañ ko defaree man nam kaddir gi mën na yaatoo na jàkka ji kenn du ko déplacé moo tax mu ne rasiyaat nim fiñ ko placé defar ko fa gis na diisaay boo xam ne xel xalaatu ko di ko déplacé lii lépp da ngay gis yàlla moo ko defal Suleymaan gannaaw ba mu defalee baayam Daawuda la mu ko defal mu wëlbati ko nag ne leen ay yéen waa njabootug Daawuda na ngeen jëfe ak sant ndax lu néew samay jaam ñoo may sant mbokk sant googu nañu xam ne daawuda alayhi salaam day mook suleymaan ñoom day lañ doon sante nekkul woon daje jaxase góor ñaan jigéen togg cere yi taal seeni kafe di dukkat ba suba jot déedéet mbokk suñ borom dana jëf leen ak sant jëf sant mooy lan yàlla subhanahu wa taala niñ koy sante moom moo ko xam moo ko digle mooy julli leen koor leen aj leen màkk génne leen zakat jëf loolee nga xam ne moom la yàlla santaane loolu moom mooy sant yàlla muy farata yi mu bokk ci sant yàlla ba nga defee farata yi ba pare nga góor góor lu ci naafile yi looloo tax sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni ki dàqoon a jaamu yàlla ci kaw suuf mooy daawuda alayhi salaam julli gi gën ci julli naafile yi mooy naka daawuda doon defe te moom la ñuy jéem ci fukki fan yi da daan nelaw genn wàllu guddi gi jóg taxaw ceer ba di ko naafila dellu nelawaat sixième ba da ngi noonu loolu xale yi jàng fraction rek ñoo ko mën a xam te yonente bi alayhi salaam musul jàng alif wala ba naka noonu loolu mooy naafile bi gën ñaareel bi yeneen ci bàyyi sam ne koor gi gën mooy naka daawud di doon defee ay da daan woor tey dog suba woor tey dog suba kenn mënul woor koor gu gën loolu ngi noonu gannaaw ba mu ne daawul lekk lu dul loo xam ne moo ko liggéey mbubb koŋ yooyu la daan defar ko deferee jaay ko def ko ñetti parti benn parti ba mu daal di koy jox njaboot ga ñu lekk benn ba mu sarxe ko benn ba mu jindiwaat ko ay weñ mi ngi noonu suñu yonente alayhi salaam dolli ci it ne daawul geer ba daw daawul geer ba daw da daan baril naa fi lu guddi baril ak kooram ca daawul geer ba daw loolu kon mbokk mooy sant yàlla moo tax suñu yonente alayhi salaatu wasalaam benn guddi mi ngi taxaw lu yàgg di naafila boole koog jooy yu metti su suñu yaay Aïcha na ko ah waaw yow mi yàlla yónni xanaa da ngaa fàtte la yàllay wax ca suratul fath yàlla nee na baal na la sa bàkkaar yépp loo mës a def ak loo mus loo loo nar a def yépp mu ne ko waaw afala akuna abdan shakura su ma yàlla defalee lu mu defalul kenn ndax du ma ko jéem a defal lu ko kenn defalul te effectivement mbokk suñu yonente salaa sallam noonu la meloon amul kenn ci sahaaba yi ku ko mas a mën a dab ci jaamu yàlla da daan def jaamu yàlla sax yum leen di tere ñoom bokk na ci loolu al wisaal tegale ñaari fan ñetti fan di ko woor ca du lekk sallallahu alayhi wa sallam daana ko def mais métti gi métti tax mu ko doon tere sahaaba yi ne buñ ko def kon mbokk loolu mooy sant i'malu ala daawuda shukura lu néew samay jaam ñoo may sant loolu borom bi bàyyi loolu delluwaat ci Suleymaan Suleymaan a ngi commandé jinne yi jinne yaa ngi jóg rek liggéey bu jeex ñu sumb beneen bu jeex ñu sumb beneen fekk Suleymaan bu leen daan contrôler amoon na benn genre cabine boo xam ne verre la day taxaw ci biir cabine bi sukkandiku ci yatam di di jàng alquran ay di julli di ñaan yàlla jinne yi liggéey sunu borom yàlla dogal Suleymaan faatu na mais mi ngi sukkandiku ci yat bi yàlla subhanahu wa taala bàyyi ko noonu ci position boobu jinne yi liggéey di liggéey di liggéey ba yàgg rek ñu gis Suleymaan ne kirtim ci suuf ñu ne def na fa bu dee demee téere israeliyaat yi ñoom la dañ naan def na fa un an mën na am yeggul foofu ala kulli xaal bi ñu ñëwee ba gis Souleymane daanu na lañ yëg ne ndekete kii dee na bu yàgg yàgg yàgg yàgg ba bant bi mu sukkandiku woon ndekete max yee ko lekk ca la Souleymane doog a daanoo te itamit yàlla subhanahu wa taala dafa araamal ci suuf du lekk lii di yaramu yonent moo tax max gi yatu suleymaan bi la lekk lekkul ay tànkam lekkul jëmmam suñu borom nag ne voilà jinn yi nit ñi jàpp ne xam nañ kumpa bu doon xam nañ kumpa day du ñu nekk ci ah torox tàgg gi nga xam ne yàlla da leen tàggatoon ngir suleymaan comme suleymaan dee na ñoom am nañ liberté waaye ñàkk xam tax na ñu continuer seen liggéey loolu muy wane ne xamuñu kumpa su ko defee mbokk jinne xamul kumpa yàlla da koo may moo am ay vitesse yu mën a dem fekke loo xam ne nit fekkewu ko jinne mën na jóge fii léegi dem Paris daal di ne day heure bi day unité 21 ñi nga fay def nangam ak i nangam bu ko defee awliya ba mu nekk foofu wax ko nit ñi ëllëg si biir bu ñu vérifié fekk dëgg la fekk jinne bi moo def loolu rek mais du ne dañoo xam li nga xam ne mooy xew ëllëg lii xew ëllëg ki ko xam rek mooy suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi noonu Cheikh Ousmane
لقد كان لسمائيا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بين فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين
barakallahu fiik suñu borom mu ni laqad kaana li sabain nekkoon na day ñeel waa saba ñu nekkoon ca yaman ca sanaa fi maskini fi maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aayatun kawtif jannataan ñaari jardin an yaminin wa shimal ci ndeyjoor ak càmmoñ kulu min rizqi rabbikum lekk leen ci seen wërsëgu boroom washkuru la te ngeen sant ñeel ko baldatun tayiba suuf bu teeye ngoog wa rabbun gafuur ak buur buy jéggale fa aradu ñu dummooyu loolu fa arsalna alayhim sayla al aram sayla al arimi ñu daal di sànni ci ñoom la nga xam ne mooy mbëndu gu targa ñu ne al arim mooy lu targa mooy ndox mu bëri ma donte ne am na ñu koy dellu ni mooy barrage ba rek ay barrage ba màbb na bëndug barrage ba wa baddalnaahum noonu lañu leen soppee dee bi jannatayhim ca seen ñaari jardin yañ amoon jannatayni zawata ukulin xamt yeneen ñaari jardin yoo xam ne lekkam ga day lekk gu wex la wa borom lekk gu wex la ñu ne ay arak la fa yàlla changé wa aslin ak lenn ci daqaar wa cheyin min sidrin qalil ak lenn ci siddéem loo xam ne lu néew la zalika jazaynahum bima kafaru loolu day mooy la nga xam ne fay nañ leen ko ca lañ weddi woon wa hal nujazi illa al kafuur ma ndax ñun daan ñekk di fayonteeg lu dul ab yéeféer wa ja'alna baynahum wa bayna al qura noonu lañ defee seen diggante ñoom waa saba ak dëkk alati barakna fiha ya nga xam ne barkeeloon nañ fa quran zahira ay yeneen dëkk yu feeñ wa qaddarna fiha sayr daa di nattale diggante boobee la nga xam ne mooy seen doxin wa siiroo dox leen fiha ci yoon woowu layaaliye ci ay guddi wa ayyaaman ak ay bëkk ay ay ay bëccëg aminin ngeen ànd ak seen kóolute mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu boroom nettali nañu ñaari jaamam ñum joxoon nguur gu rëy ñu sant seen boroom mu tagg leen tey nag mu ñuy jox seen contraire te loolu la suñu boroom wax ni laqad darabna linnaasi fi hadha alqur'ani min kulli masal misaal bu nu yàlla jox nañu ko ñii waa saba lañu seen histoire jàngoon nañ ko ca nam la ba leen suleymaan yónni hudhuda fekk jigéen moo leen moomoon waaye lii moom ci beneen période la période boobu da ngay gis ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi melal ne dafa naatal seen dëkk ba ñu ne dëkk boobu mi ngi nekkoon ci Sanaa seen capital boobu ñu am ñaari tool yu mag fekk ne dëkk bi dafa am ñaari montagne yu ko tiim mu am benn dex goo xam ne dafa daan jóge ci gannaaw su ñëwee di traverser montagne yi di jàll ñu fexe ba fatt diggante ñaari montagne yi mu nekk barrage barrage boobee ñu utal ko ñetti fenêtre benn bu nekk ca kaw a kaw nga xam ni ndoxu dex gi ak taw bi bu ñëwee dana ca jaar ñuy arrosé seeni tool suñ demee ba nawet bi passé ba ndox mi wàcc ñu ubbi deuxième fenêtre bi suñ demee ba ndox gën a ñàkkati ñu ubbi fenêtre ba nekk ci suuf ba nga xamee ne at bi yépp dañuy am ndox en permanence di arrosé seeni tool tool yi nekk naat ndey jooru dëkk bi ak càmmooñu dëkk bi yépp suñ borom ne leen day mi ngi nii lekk leen seen wërsëgi boroom te ngeen sant yàlla yàlla mu ne teeyal naa dëkk bi baladu tayib mooy suuf ba teey na wala baladu tayib yaxruju nabaatuhu bi isni rabbi yàlla indiwu fa ay gunóor indiwu fa ay soccet indiwu fa ay sax naat amul lenn lu yàq seen mbay ma baldatun tayiba ba pare suñu borom mu ne man yàlla it maa ngi leen di baal waaye au lieu ñu defe la yàlla santaane ñu daal di bew du mooyu te xam ngeen suñu borom moo ne woon la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid suleymaan ak daawuda bañ santee yàlla bàyyee ne leen seen xéewal bal yokk seen i xéewal amma ñii bañ demee ba bew suñ borom bàyyi leen ba fa ndox ma gën a kawee ca barrage ba benn bis rek moom mabb benn yoon barrage ba ndoxu dex yaag ndoxu taw yaag yépp ànd daa di fees dell la nga xam ne mooy seen tool ya fees dell seen kër ya àll ba yépp ànd yàqoondoo ba seen jardin yooyu nga xam ne historiens yi dañ ciy nettali yoo xam ne yàlla gën a xam nee nañu boo masaan jël pañe dugg ci jardin bi bala ngaa génn pañe bi day fees ak fruit ndax lépp ngi ñor lépp ngi lang pom yaag mango yaag lépp dara mankiwul lépp ngi lang suñu borom mu ne la ma leen mujj fay mooy bañ demee ba ndox ma yàq lépp ba ndox ma ngi seen lu fa des garab yoo xam ne kenn mënu ko lekk wexat mu boole ca daqaar ca mbokk xam ngeen na daqaar des koy rënde des koy safale waaye daqaar des ko dundee am déet naka noonu ak siddéem siddéem tuuti ci siddéem ca xam ngeen siddéem dafa bari ay façon rek lañ gis fii Dakar siddéem yu bari ñam mais ba demee ci àll bi dañuy gis siddéem yoo xam ne xoox ak der kese la moo tax mu ne mu ne siddéem xalil ca en général siddéem yooyu nga xam ne doom yi day gën a tuuti foo ko fekk ay dég yu dul jeex lay am kon noonu la leen yàlla fay dara manqué wu leen tey nag amuñu dara man ngaa dugg ci àll bi suba ba ngoon di dajale loo lekk doo mën a am lu fees sa genn biir loolu di benn borom bi subhanahu wa taala ne nan lay fayeen toog xanaa lu dul yéeféer yéeféer rek mooy def lu bon yàlla jox ko lu bon loolee amma bu dee julite lépp loo def yàlla fay la lu gën la nga def borom bi gën naa xéewal googu mu leen defaloon ci jardin yi mu dolli ci beneen xéewal ñi ngi daan jóge ci Yemen daan dem Sham ci Syrie nga xam ne booba puissance bu mag la woon suñu borom yàlla ci diggante bi mu defal leen ci ay dëkk yoo xam ne asalan tey boo xëyee Dakar mën ngaa dem yendu ji la nga xam ne ni moom mooy fu mel ni jam ñaajo fanaani Thiès dem feneen dem feneen dëkk yi tegaloo noonu ñuy mën a tukki aller retour sans problème waaye da ngay gis ne sunu borom yàlla bi mu leen defalee xéewal googu ne leen gëm leen bu leen neexee dox guddi amu leen lu ngeen ragal dox bëccëg amu leen lu ngeen ragal am na leneen loo xam ne moom la ñu fayee borom bi mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
لقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير barakallahu fiik suñu borom mu ne fa qaalu rabbana ñu ne ay yàlla suñu borom baa'id bayna asfaarina sorilal digganteeg suñu tukki yi way wa zalamu anfusahum noonu la ñu tooñe seen bopp fa ja'alnaahum ahadis ñu def leen lu ñuy nettali wa mazzaqnaahum kulla mumazzaq ñu daldi leen di tasaare gépp ak tasaare inna fi zalika la ayat nii day la ci nekke kawtéef li kulli sabarin shakur ñeel képp kuy muñkat képp kuy cantaakoon di sant boromam wa laqad saddaqa alayhim iblisu zanna dëggaloon na ci ñoom day iblis njortugam jortoon fattaba'uhu ñoom ñépp ñu topp ko illa fariqan min almuminin lu dul benn kuréel ca ñu gëm yàlla wa ma kaana lahu alayhim min sultaan doonte ne nekkul woon ñeel ko ci ñoom benn lay illa li naalama man yuminu bil axira lu dul ñu xam ana kan ci ñoom mooy gëm alaxira min man huwa minha fi shakk te ka nga xam ne dafa am benn shakk ci loolu wa rabbuka ala kulli cheyin xafiz sa borom yàlla day bépp mbir mooy ka koy wattu qul idu allazina zaamtum min dunillah nee leen woo leen lépp lu ngeen di woo ca du yàlla laa yamlikuuna misqaala zarra ñoom day moomuñu lu toll na sax zarra muy sànqaleñ bu gën a néew bu la neexee tudd ko ab atom fi samawati wala fi l ard na doon loolee dafa nekk ci kaw asamaan ya wala nekk ci kaw suuf wa ma lahum fihima min shirk ca it ñeeru leen ci loolu benn bokkaale wa ma lahu minhum min zahir te it ñeelu ko kenn ci ñoom ku ko ciy dimbali mi ngi noonu bokk ñi nga xam ne ñooy waa saba suñu boroom yàlla dogalee xéewal googu mu leen defal ña nga xam ne mooy notable yi commerçant yu mag yi gis ne kat ku mu neex rek man ngaa dem jëndi marchandise te Cham ñu ne ah lii daal sawa pa ay yàlla lii ngay def dëkk yu bari yi yàlla màbbal dëkk yi waay ba nga xamee ne borom doole rek mën a tukki te tey jii mën na am ne buñ ne woon nañ yombal paasu Hong Kong wala paasu Dubai ba comme cinquante mille dem yaakaar naa commerçant yu bari duñ ci d'accord mi ngi noonu ala kulli xaal loolu xéewal gi leen yàlla defaloon nga xam ni dëkk bi yépp a naat ñépp a mën a am xéewal waaye doomu aadama du doyle ñu ne yàlla màbbal dëkk yi nekk ci diggante bi waay ci noonu lañ tooñe seen bopp borom boobu subhanahu wa taala nag ne ca laa leen def lu ñuy nettali ay ba mu leen alagee génération yi ñëw gannaaw yépp ñu ngi doon nettali seen histoire doonte ne ne comme ni ngeen ko yàgg déggee yéeféri lu ñu doon wax asatirul awalin li ah léeb la yu maam yi léeb rek borom bi it nee na ma tasaare leen te mbokk xam ngeen ne tasaaroo doomu aadama fitnaa koy jur mi ngi mel ne lay xew tey siri mbokk yàlla tasaare na leen ay million nga ca désert ba ca biir neige ba ay million nga dem Turquie ay million nga tasaaroo biir Europe am na ñoo xam ne xamuñu fu seen yaay nekk am na ñoo xam ne xamuñu fu seen doom nekk xamuñu ndax ñi ngi dund xamuñu ndax ñi ngi dee loolu mbokk nekk lu metti loolu la suñu borom def waa saba ni ngi noonu borom bi nag ne képp koo xam ne da ngay muñ cee sant yàlla day ay kaawteef la la ñeel ci lii te jullit moom mooy ki nga xam ne bu jamono naqaree mu sant mu daal di muñ muñ gu rafet loolu nekk yiw ci moom bu xéewal yàlla ñëwee mu sant yàlla ci xéewalam yooyu su ko defee yàlla dolli ko mu nekk xéewal ci moom amma lii ëpp ci doomu aadama bu natt ñëwee ñu ñikki saalit bu xéewal ñëwee ñu daal di bew borom boobu subhanahu wa taala nag ne li ko waral mooy seytaane day dafa jortoon benn mbir far mbir ba nekk dëgg seytaane bi ko yàlla alagee génne ko ci yërmandeem daf na yàlla day gis nga sa jaam bi tax nga génne ma sa yërmande soo ma bàyyee day ak jaamam yi ak ak ay ak njabootam ñoom ñëpp danaa leen yóbbaale sawara la ahtanikanna zuriyatahu illa qalila danaa leen nalab ñoom ñëpp tabbal sawara lu dul lu néew sunu borom na ko demal ku la ci toppit yaa ngi may bokk sawara borom bi nee na iblis daa jortoon lool rek waaye xamuloon ne mën naa nekk waaye ndékkate yoo te iblis lam waxoon réussir na ko réussite ba mooy lan yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mboolem doomu aadama yi junni boo gis kenn moo ci mucc ci iblis waaye la des yépp topp nañ iblis moo tax dana wo sunu borom dana woo sunu bay aadama da ko aadama sa njaboot gaa ngi nii kaay xaj ji li ci sawara moom mu ne ko yàlla lan lay xaj ji mu ne ko junni bu nekk xajjal juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu mooy paaru sawara mi ngi noonu loolu nekk mbokk loo xam ne donte ne xeetu yonente bi alayhi salaam ay ngëneelam bari na sahaaba yi biñ déggee xadis boobu tiit nañu yonente bi ne leen nag bu leen tiit xam leen ne ni ngeen mel ci nit ñi mi ngi mel ne rek benn nag bu weex tal am benn tupp bu ñuul noonu ngeen ci mel ah la nga xamee ni ni mooy àllaaxira sama xeet ñooy nar a nekk genn wàllu ajjana saxaaba yi kabbar mu ne leen ñooy nekk sax la nga xam ne mooy deux tiers ajjana waaye mbokk lu mu mën a doon bépp examen bu élève gi dem ñu ne ko examen bii nga jëm day un sur mille la ñuy jël élève ba lu mu brillant brillant lu mu mën mën jàng balaa xele ma dal résultat daa génn bañ ne ko at mi nga am déet su ko defee kon yàlla nañu yàlla boole ci benn benn ci junni yooyu suñu borom nee na topp nañ ko lu dul lu néew ci jullit ña mu ne moo ne day amul woon ci ñoom benn kàttan ñun ñoo ko defoon fitna mu woote waaye mbokk iblis daawul yenu kenn jattuloo sam ne ko kaay sujuutal xërëm bi iblis amul kàttanu fekk benn ñib mu jël kaasu sangara forcé ko mu naan iblis daa woote rek ñu ngi noonu léeg-léeg nga dégg ko ci rajo bi waaw ñu ngi woote sayal night waaw ñu ngi woote yëngu leen pass bi dix mille quinze mille nangam nangam ah ñooñu dañoo ne seen communiqué woote ña fa ñëw ba dugg fa bu ñu wax ne yéen ñu fi indi dañoo woote ñu wis leen iblis it naka noonu mu ne hey yawmal qiyaama falaa taluumuunii wa lumuu anfusakum li amoon mooy illaa an daawtukum fastajabtum lii kon borom bi mu ne amu ci woon ñoom benn kattan ñoo ko defoon nattu xool ñi gëm àllaaxira ci ñi ci gëm ñi nga xam ne ni dañ cey sikk sàkka sa borom yàlla nag mooy kuy wattu lépp mu bàyyi loolu delluwaat ci yéefiri ne leen ngal la way kaay leen woo leen ñi ngeen jorte ne mënal nañu leen dara moomaluñu leen te moomaluñu seen bopp lu tol ne zarra ci njëriñ lu tol ne zarra ci lor na doon loolu day jóge ci asamaan ya wala loolu day jóge ci kaw suuf loolu xam nañ ni moomuñu ko gannaaw ba amul lenn luñ bokkal yàlla ci kaw asamaan ak ci kaw suuf ñetteel ba amu ci kenn ku yàlla yi woo pour mu dimbali ko ci li muy dogal ci ay jaamam kon ki naan yàlla ak diw mi ma yaakaar jàpp nga ne yàlla day bu lay defal diw moomu day ñëw jàppale ko loolu nekk ay njuumte bokk jullit yàlla mooy kenn ki nga xam ne moo moom amul kenn ku bokkaaleel amul kenn ku muy woon dimbal jalla wa ala mi nga xam ne mooy al aziz al muqtadir lii kon mbokk dañuy gis ne mooy bind yu mag yi ñu jël tey bee mooy suleymaan ak daawuda bee mooy saba ak seen beew ga yàlla nañu yàlla teg ci yoonu Suleymaan ak Daawuda di yokk suñu xéewal àdduna ak alaxira ca musal ñeen ci yoonu mbew ak yoonu réer wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad
mu ne ndax facebook mën nañ ci takk sëy ah mën nañ ci takk sëy kay problème bi kay mooy takk ci sëy daa wóorul yaa ngi dégg waaye boo demee nekk Amérique kay gis ku la doy ci facebook bi ngeen wax ba juboo nga yónnee ci ay kilifaam ay kilifaam may la ko yow yaa yow yaa xam waaye maa ngi la ci nettali de benn kaa de benn koo xam ne nii moom ba mu demee aéroport dénkoom ñoom ñaar ci facebook lañ sëyi samay benn jarbaat ci ñu doon dox loolu la sax ñu yàgg a wax yàgg a wax yàgg a wax ndaw si ak waa ji biñ demee waa ji war a ñëw ñu dem aéroport ñu dem a dem a dem ba avion bi wàcc ñuy téléphoné téléphoné ba war a jàkkaarloo ndekete waa ji tungu ni la ndaw si noonu la rocceekoo ne mes dem sëy ba fa la yem aw ma dara tungu nii tungu nii bëri ñoo ma gën yàlla leen ko nattoo waaye li ma bëgg a wax mooy ki toog ci facebook xam nga doo xam taay yaa ngi dégg bari na ci yéen mbokk julit wallahi da ngay gis ne jigéen ñi bala ñoo dem facebook mais façon toilette bi ne dañ ko def bari na ku ci yoo xam ne dañ ciy takk photo facebook wallahi boo jógoon aéroport wàcc dem seen kër dajeeg moom da nga ko laaj ana Fatiam fekk Fatiam ngay waxal al kon loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam dane woon kenn ci yéen buy takk soxna su ko mënee gis na ko gis ba pare li ñuy wax mbokk gisunu facebook doyul gisunu Viber doyul bala ngaa takk soxna xaaral ba ñëw nga jàkkaarloog moom mu jàkkaarloog yow bu ngeen doyantee ngeen doog a takkante mais ay photo ki facebook loolee ak réalité des fois day sore lool amaa nag boo ko defee sëy bu wér na wallahu subhanahu wa taala alam ah non kooku moom ab yàqkat la boo déggee li ma la wax ci facebook bi dama ni nga wax ak moom ba ngeen juboo nga yónnee ci ay kilifaam kilifa yi may la ko loolu laa wax amaa nag caaxaankat boobu génn ci rajo yi ak télévision bi nga xam ne wallahi li mu yàq ci diina ji xawma ko ma ko mën a méngaleel xadis yonente bi alayhi salaam mu ne dara wéru ci loo xam ne Buxaari wax ko muslim wax ko mu ne waaye loolu du dara yonente bi alayhi salaam dana rëbb nit yonente bi ku mu rëbb dootoo dox te yàlla di rëbb yéeféer yi yéeféer yaa ngi dox seen soxla am déet gannaaw ba nga dégg muy wax ne affaire sëy yi xale bu jigéen bu majeur moo moom boppam ku ko neex mën na may lu ko neex SMS ak lu mu doon jubóo ngeen jeex na sëy bi pare na li yàlla ak yonente bi araamaloon yépp mu ne ay muuraay c'est faux loolu du dara yàlla defu ko dara ay rasta ki kii kum neex rastal dara niwu ci mbokk loolu da ngay gis ne Sénégal rek lañ ko ñemee waaw naam naam waaw waaw ala kulli xaal li ma loolu mbokk leen rek moo ko waral xam nga lu waral loolu mooy diina ji moo amul ku ko jooyal loolu moo wax tarixa yi nekk fii bu doon dafa dem ci rajo bi wax ci tarixa yooyu ay yet moo koy fekk foofu ak i xeer mais comme diine l'islam moom amul ku ko jooyal lu neex way wax attaqué xadis yonente bi attaqué la nga xam ne mooy alxuraan lu ko neex mu attaqué ko waaye mbokk nañu xam ni suñu diine ji basam mooy xadis léegi leen julli takkusaan amul benn aay ci alxuraan bu lay wax takkusaan ñeenti rakka la amut xadis yi ñooñu ko toxalal wan ñu ko kon képp ku doyadal xadis doyadal ne diine ji loolee ñu bàyyi ci xel bu baax yal nañu yàlla musul ci ayam ak ayu ko mel na moom naam bismillah waaw ah ah waaw dafa am jinne yu doy waar comme am nit ñu doy waar waaw waaw ah na am jinne dafa am ñu baax am ñu bon ni nit ñi mel exactement li jinne yi mel am na ci ahlu sunna am na ci nit bida am na ci lu nekk am na ci doomu aada ci jinne yooyee su ko defee jinne yu baax mën na xeertal nit diggal ko lu baax doonte ne dafa wóorul collaboration diggante nit ak jinne liñ leen di sant mooy bu ko nangu mukk bu nangu mukk jinne ñëw di la diggal wala mu lay tere dafa bari ci ñoom workat comme ni mu amee ci nit ñi su ko defee seen seen monde monde à part la suñu monde monde à part la li ñuy gëm daal mooy am na ca ñoom ñu baax am na ca ñoom ñu bon ña ca baax ñoom ñoom ñooy ànd dëkk biir aljanna ña ca bon moog yéeféer yi ànd dëkk biir sawara loolu daal lañ ciy wax mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam xaw na fàtte est-ce que ko doon wax fii waaw bismillah waaw waaw asalaam ndax laylatul qadr am na ay mandarga di ci borom xam-xam yi wax bari na waaye mandarga bi ci gën a feeñ daal mooy yonent bi alayhi salaam nee na woon mi ngi ci fukki guddi yi heure boo góorgóorloo fukki guddi yépp laa chaque da nga dë- dëppoog laylatul qadr da ngay gis ne borom xam-xam yi dañ naan wallahi sunu borom bu ne woon leelatul qadr mi ngi woon ci at mi borom xel yi guddi yi at mi yëpp dañ ko taxaw ngir sàkk leelatul qadr ak nag sunu borom ne mi ngi ci biir weeru koor loolu moom laa chàkk fii ak nag yonent bi alayhi salaam ne mi ngi ci fukki guddi yu mujj yi su boobaa kon yow fexeel màng fukki guddi yi mujj yi rek guddi gi nekk jàppal tey leelatul qadr amma nag boo demee ci tegtal yi ci wax bari na bis boobu jant bi buy génn rayon yi du tàppe du nangam maa ngi ci gis lu yàggul sax ay démonstration scientifique yu ñu ciy def mais yooyu moom yeneen mbir la ala kulli xaal indi nañ ci ay mandarga waaye mandarga bi ci gën a kawe mooy li yonent bi alayhi salaam wax mi ngi ci fukki guddi yi gannaaw ba itamit mi ngi ci witr yi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam ah bismillah tawraat mooy cosaanu diine bani israil yépp tawraat moo nekkoon seen baasu diine yàlla nag dolli woon na daawuda zabuur muy téere boo xam ne nekkoon na di doon loo xam ne yàlla am na santaane spécial yu mu ko ca sant yu bokkul ak yëkk a jiitu woon comme injil ni mel ci yeneen ci yàlla isa suñu borom mu ne musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawra injil ñëwul lu dul dundal tawraat am ñenn yum ca changé moo tax tubaab yi di wax naan l'ancien testament ak le nouveau testament kon zabour la yonent yàlla daawuda yoroon waaye base téere bañ doon attee moom mooy tawraat biñ joxoon yonent yàlla Moussa ndax mbokk bi fàttaliku na am fàttalikuwul ah ah waaw bismillah waaw
am amul liggéey noonu amul lu opportunité lekk yàpp mbaam est-ce que dafa xar foofu noonu wala ndax ki xiif ba dee ca amoon na yàpp mbaam bu mënoon a lekk lekk ko mu xiif ba dee loolu dañuy wax rek su dee ne moom ak ñàkk xam moo ko ci yóbbu xamul ni jullit bu sonnee mën na lekk yàpp mbaam xiifam boobu tax muñ na ko ba dee fekk ko ca te bëggul def lu yàlla xaraamal ku mel noonu kenn du ne dafa xaru mais bu doonte ne xam na dañu koy wax ne xaraam googu mi ngi yem ci jamono bu lor amul waaye boo xiifee ba nar a dee su boobaa doomu aadama lépp loo mën a lekk dañ naan danga koo war a lekk na doon loolu lu xaraam la comme yàpp mbaam xuux wala lu keneen moom la donte ne joxul la ci ndigal jullit amul droit xiif ba dee gis fii lekk boo xam ne keneen ko moom mu naan lekk jaamurul du ma ko lekk déedéet moom la borom bi wax ne leeralal naa li ma araamal ci yéen illa ma turittum ilayhi lu dul la nga xam ne da ngeen dem ba lor yóbbu leen ca mbokk kon mi ngeen ah non koor bi jàpp dafa mel ni da nga wax ne suñu yàlla Suleymaan ñu ko ci yar yi ñu ngi doon jàng Qur'an te comme boobu Qur'an ñëwagul déedéet déedéet yéen loolu bu dee ne loolu lañ wax njuumte la doonte ne ne loolu bu dee loolu laa wax njuumte la ala kulli xaal quran ku ne xam ne mu ngi wàcc yonent ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu dul ne quran cosaan ba mooy lu ñuy jàng waaye yonent ci yàlla suleyman lam tombeeloon mooy tawraat ak zabuur ba yàlla joxoon baayam mi ngi noonu tawraat ak zabuur ba yàlla joxoon baayam te gis ngeen zabuur alayhi salaam dégal mooy daawuda alayhi salaam ni ko yàlla tàggatale woon zabuur ba mu daan xëy di ko jàng ñëpp di ko bàyyi mi yëpp di ko fekke doomam di suleymaan it noonu la daan def taxaw taxawaay yu gudd di julli jinne yi di liggéey ci kanamam waaye alquran moom mi ngi wàcc ci sunu yenente muhammad alayhi salatu wasalaam yal na yàlla julli ci moom julli ci daawud ak suleyman wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad waaw